ñun dégg naa yàlla dafa sànni rek ñu borom nit yi ñun ñu mel Yeah. mooy ngeen naka ngeen di defalee Sénégal muy réewu jàmm. naka ngeen di defalee Sénégal yi ñu dem liggéey. naka ngeen di xiiree xale yi ñu dem liggéey. te liggéeyukaay a ngi fi bëri ba bëgg dee. te fi bëri fi ndox a ngi fi. suuf a ngi te luñ suuf laaj ndox rek mu defal ñu. laaj suuf laaj ndox rek mu defal ñu. waaye bëgg jël ñëpp nag. dajale leen Ndakaaru. dajale kenn amu fa liggéey. te liggéey. bu mu gisee fu ndollu rek. su gisee fu mu ay daal di am. loolu yëpp nag. seen discours yi ngeen di discours. yi ngeen di faral di discours. mooy indi ay yii yëpp. yëpp. parce que discours ndax dañuy défendre démocratie dañuy défendre démocratie ak mooy lan ak mooy lan te réew yu civilisé yi passé nañ ko sax fàttuñu ko réew yu civilisé yi réew nañ ko passé ne après démocratie la ñuy wax waaye démocratie waxatuñ ko te Sénégal ci nature ci yaram ci yaram ñoom ñëpp ay démocrate lañ ndax foo dem rek da nga gis ne ñëpp a jotaay baa ngi nii. jotaay kenn xàmmewut kenn. ay Sénégal rek ñoo fi daje. rek ñoo fi daje. di ñaan yàlla. di ñaan yàlla am nañ imaam dinañ ko jiital. am nañ imaam ko jiital. am nañ ay boroom xam dañ leen déglu. foofu la yem. kenn nekkul ci kaw kenn. kenn nekkul ci kenn. kenn euh, exploité wut kenn. kenn exploité wut kenn. ñun ñëpp ñoo ko bokk. ñoo ko bokk. ñoo ko bokk am benn kaddu bi. ñoo ko bokk am benn kaddu bi. su fekkee mbir naa ngi nii. su fekkee mbir naa ngi nii. am na kaddoom. am na kaddoom. xew xew xew na. xew xew am na. dana joxe kàddoom waa Mérina yëpp dañ ci ànd ak moom wala ñu baax ñi nekk Mérina yëpp dañ ci ànd ak moom eh, dëgëral ko ñu xam ne lii mooy suñu taxawaay bëgguñ xay ci réew mi dimbale wuñ kuy taal ay ci réew mi ànd ñoo kuy taal ay ci réew mi dañuy dimbale suñu suñ suñu réew suñu population ñu ànd mën a nekk nit ñoo xam ne lañ nit ñu civilisé lañ nit ñu xam ni ñuy xeexee seeni droit lañ te du ànd ak tur deret du ànd ak lakk kër du lang ànd ak lakk oto jàmbur sa moromi sénégalais bi dem góorgóorlu liggéey ba am otoom nga ñëw taal ko ban njëriñ la la amal ba sa moromu sénégal bi góorgóorlu ba am këram nga ñëw lakk ko nga ñëw lakk ko ban njëriñ nga ci am ban njëriñ ci yi fi nekk Sénégal yi di ci jëriñu di ci amee dépasse nga ñëw lakk ko dafa nekk nga jël ko yóbbu koy liggéeyal ndax Sénégal ngay liggéeyal wala yaa ngi liggéeyal benn idéologie boo xam ne liggéeyu idéologie bu xat la xew xew am na Sénégal métti na waaye xam nañ wala boog ah, yaakaar nañ ne am nañu xam. wala yaakaar nañ boog ne am nañu xam. nit xew xew bi li xew lii rek la. nañ dem rek la loolu rek mu jeex. nañ ko ye mu jeex. rek mu jeex. te mën naa réglé wu. te waaye. nekk fi di am ay parparloo. waaye nekk fi di am ay parparloo. diw la diw la. diw la diw la. ñun ànduñoo ak Macky. ñun ñun ñii ànduñoo ak Macky. keneen. keneen. waaye seen ñàkk ànd googu yëpp. dafa war a nekk profit boo xam ne. senegal dina ci jëriñu. ne ñun. liñ bëgg. mooy ñu bokk nekk nit ñoo xam ne. nit ñu mat lañ ay nit. nit ñu mën a sàmm di leen yàlla dénk la. yàlla yonent wax na ne. kullukum raa'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kenn ku nekk ci yéen. kenn ku nekk ci yéen. yàlla nga koy sàmmloo. yàlla ku nekk la yàlla di sàmmloo. te ku nekk la yàlla di sàmmloo. yàlla dina la ko laaj. yàlla dina la yi.

ci la Sénégal di boppam. di boppam. ci la Sénégal di amee jàmm. ci la Sénégal di amee jàmm. yéen ngi dégg. yéen a ngi dégg. Irak la fa xew. Irak la fa xew. yéen ngi dégg Congo la fa xew. yéen ngi dégg la euh, Afghanistan la fa xew. réew mu am alal la. waaye amul ay nit yu yu mat. waaye amul ay nit yu mat. ba mën a saytu seen alal jooju. ba mën a saytu seen alal jooju. gars yi ñoo porox ndollu rek. gars ñoo porox ndollu rek. jël seen alal ko. jël ñu ngi koy bëgg a tudd ci am alal. ñi nga xam ne alal rek la ñuy ut. ñi bu ñëwee jël suñu alal jooju rek. porox ndollu bu ñëwee jël suñu alal jooju rek. moom la xaar. moom la xaar. te yii mën naa ubbi porox ndollu yooyu. yooyu ndax déjà France dégg ngeen. ndax déjà France dégg ngeen. mu ne dina yónnee junne. ak ak ak juróomi téeméeri soldaar. mu ne dana yónnee junne ak juróomi téeméeri soldaar. ngir ñu ñëw aar seen intérêt yi nekk fii. ngir ñu ñëw aar seen intérêt yi nekk Sénégal. benn porox ndoll benn porox ndoll yeneen poros ndoll. yeneen mën naa ubbeeku. mën na ubbeeku. bu ñëwee ñun rek ñoo ciy loroo. bu ñëwee ñun rek ñoo ciy loroo. kon nag yéen ñi nga xam ne yéen a coow lii. ni yéen a seq dellu si leen ci seen xel. dellu si leen seen xel. dellu leen ci seen nattale. dellu leen seen nattale. discours. dellu leen ngeen xam ni ngeen di waxee ak nit ñi. xam ni ngeen di waxee nit ñi. ngeen leen di discours su loo xam daf leen di taal rek. bu leen di discours discours boo leen di taal rek. ñuy ci mbedd mi. ñuy ñu def. lu leen loolu. bu fekkee ñi koy jiite. am nañ xam itam. am nañ xam-xam seen dayoo bopp rek la daal di Sénégal yëpp ñoo war a ànd na bañ koo nangu. Euh, gouvernement. am fonk suñuy fonk seen i jàngale. nañ fonk seen i ñàkk bopp. waaye loolu la. waaye moo war a am. bu demee ba amatuñ gouvernement. ndax kenn jiitetuñu. kenn jiitetuñu. ban anarchie moo fi am bu boobaa. ban anarchie moo fi daal di am bu boobaa. kenn moomatul kenn. moomatul dara. kenn dara. xeex nañoo police yi dàq nañ leen. xeex ndam la. ban koo xam ne sa jàmm lay utal. koo xamante nga xeex ak moom ba dàq ko. nga ndam nga am. amoo benn ndam. ndax li nga yàq. moo gën a bëri. li nga defar ci loolu. li nga defar ci loolu. nañ delluwaat dañ delluwaat ñu ngi leen di ñaan yéen suñu intellectuel mu ne ñu d'accord waa daara lañ ñun d'accord lañ ay analphabète lañ comme ni ngeen ñu koy waxee comme waaye nag waaye ñi nga xam ne yéen a instu jàngal xam leen ni ngeen di wax ak ñi nga xam ne jànguñ boobu xam leen li ndax di mën a xam li ngeen li ngeen wax liñ ci gis amul benn njëriñ waaye li ngeen dëkk dëkk yu mag yëpp dëkk yu mag yëpp ay rek nga fay fekk ñu ko fa taal ay rek nga fekk ñu fay taal mais pourquoi kuy jëriñu ci ay boobu ci ay ndax ñun Sénégal yi jëriñu ndax ñun ci jëriñu ndax ñun Sénégal ñooy jëriñu daane nañ suñ gouvernement wàcc nañ suñ président mu ngi toog léegi amuñu gouvernement amuñ président luy xew bu boobaa kenn xamu ko jàngal leen génération bii di ñëw naka la ñuy téye seen réew naka lañ koy bëggee waaye na xam ngeen xam ne lii ngeen di jàngale mooy toxu ci ñoom rek boo toogoo ci ñoom bu ngeen toogee fi ngeen bëgg a toog rek ñoom itamit ñu yoroon ne du ne du ngeen fi toog ngeen fi toog bu ko defee jeex du xaaj nañ dellu ci xam yi ngeen jàng nañ ci dellu nañ ko xóotal nañ ko xam waaye buñ am ci teel teel boobu rek waaye buñ am ci teel teel boobu rek teel teel moo indi musiba yii moom la yàlla teg ci kaw bopp réew mi moom la yàlla teg ci kaw bopp réew mi moo moo gën a moo ëpp responsabilité. moo ëpp responsabilité. ci kanam yàlla. ci kanam yàlla. ñu ngi koy ñaanal yàlla. ñu ngi koy ñaanal yàlla. yàlla dimbale ko mu xam loolu. yàlla ko yàlla dimbale ba mu mën a xam loolu. bu ko xamee yàlla na ci def ay pexe. su ko xamee yàlla na ci def ay pexe. yéen ñi itam ci suuf di xëccu. xëccoo leen xel. xëccoo leen ak xel. bëgg seen réew. xëccoo leen ak bëgg seen réew. bakkan yi daanu dee. bakkan yi daanu dee. yéen la ko yàlla di laaj. yéen parce que yéen leen yóbbu fuñ dee. parce que yéen leen yóbbu fuñ wax lu tax ñu dee. yéen leen wax lu tax ñu dee. kon génnu leen ci. kon génnu leen ci. te ëllëg dañ leen ko laaj. te ëllëg kon danañ leen ko laaj. laay jaa ngi wax léegi ne. laay jaa wax léegi mu ne. yàlla. yow yàlla. kenn yàlla yàlla nee na. yàlla nee kenn laa jàpp ma kenn muy sama doom. kenn laa jàpp kenn def ko sama doom. waaye waaye ku bëgg doon sama xarit waaye ku bëgg doon sama xarit buntu baa ngoog ubbeeku na buntu baa ngoog ubbeeku na te nag yéen ñëpp li ngeen di def te yéen ñëpp li ngeen di def ëllëg di ngeen taseeg man ëllëg bu ngeen taseeg man ku nekk dana ma wax la doon def lu tax mu def ku def loo ci jublu loo ci jublu ndax ju xanaa duñu wax ne xanaa duñu wax ne dañ koy jublu rek rey nit ñi si mbedd mi xanaa duñu wax ne dañ koy jublu ngir rey nit ñi rek ci mbedd mi nii dañoo jublu woon rek taal taal kër yi ñi dañoo jublu ngir taal kër yi ñi rek taal oto yi nit ñi taal lu tax mais lu tax ban njëriñ la am pour Sénégalais yi diw ñàkk na otoom lu ci suñu yoon. diw am na otoom lu ci suñu yoon. am waaye góor góorlu góorgóorlu diw moomu am oto. diw am oto. am kër. nga ne ko li des li li des sa nga moom ko. nga ne ko li des sa nga moom ko. jéem ko dugal foo xam ne Sénégalais dinañ ci jëriñoo. jéem koy dugal ci foo xamante ni Sénégal dinañ ci jëriñoo. sant leen borom xaalis yi ñu tabax ay usines. sant leen borom xaalis yi ñu tabax ay usines. projet yoo xam ne. waxtaan suñu tabax ay projet yoo xamante ni Sénégal dana ci jëriñu Sénégal dana ci jëriñu waaye dem leen lakk këram waaye dem leen lakk dem leen yàq xaalisam ba dem leen yàq xaalisam ba ñaar ñëpp perte ko ñaar ñëpp perte ko loolu amul benn njëriñ loolu amul benn njëriñ am na benn sëriñ mu ne am na benn sëriñ am benn taalibeem jox ko tariqa tijaan jox ko tariqa tijaan mu nekk ak sëriñ boobu ñaar mu nekk sëriñ boobu ñaar fukki at sëriñ ba gaañu génn àdduna sëriñ ba gaañu daal génn àdduna mu ñëw ci doomu sëriñ bi mu ñëw ci doomu sëriñ bi bees ci moom bees ci moom liggéey moom fukki at liggéey moom fukki at daal dégg beneen sëriñ daal dégg beneen sëriñ dem bees ca kooka dem bees ca kooka sëriñ bi oo ko sëriñ bi oo ko ne ndax dama dégg na da dem beesu ci diw ne ko damaa dégg na da ngaa dem beesu ci diw mu ne ko waaw mu ne ko waaw mu ne ko bon dagg naa la ci tariqa mu ne ko kon dagg naa la ci tariqa mu ne ko déet bul def noonu mu ne ko déet bul def noonu sa baay moo ma joxoon wirde sa baay moo ma joxoon wirde wirde naa ci suufam ñaar fukki at naa ci suufam ñaar fukki li ma wirde yëpp may naa ko li ma wirde yëpp may naa ko ko yow wirde naa ci sa fukki at li ma wérde yëpp may naa la ko li ma wérde yëpp may naa la ko bàyyi ma benn bi ma am ci waaj rek doy na ma mu ne waaye bàyyi ma ma dem ci waaj benn bi ma am ci moom rek doy na ma kooku xam na marché kooku xam na marché xam na njëriñ xam na njëriñ bul bul bul pertal fanweeri at yi yëpp ci neen kooku bul pertal sa fanweeri at yëpp ci neen bàyyi ko ñu ko ñu ma ko joxoon jëriñoo ko bàyyi ko ñu ma ko joxoon ñu daal di ko jël jëriñoo ko kooku am na xam-xam. kooku am na xam-xam. xam na itam lan mooy njëriñ. xam na lan mooy njëriñ. waaye jàng naa. waaye jàng naa. bindkat laa. bindkat koy jàngal koy bindal. waaye koy jàngal ak koy bindal. ñoom résultat bii lay joxe. ñoom résultat bii lay joxe. ndem résultat bii lay joxe. yàlla musal. yal yàlla musal. ñu ngi nuyu kilifa yëpp ñu ngi nuyu kilifa yëpp ñu ngi leen di ñaan dinañu wax naan kilifa diine yi wax leen wax leen ñu ngi leen mu ne nit ñaa ngi naan yi wax leen wax leen wax nañ ba bëgg a dee kilifa diine yi wax nañ bay bëgg a dee waaye booy wax ak ku du dégg waaye booy wax ak ku du dégg daanaka waxoo daanaka waxoo. te ñii ñëpp seen bopp seen bopp rek lañ gis seen bopp rek lañ dégg. te ñii daanaka seen bopp rek lañ gis seen bopp rek lañ dégg. kon kooku ñooñu neexuñoo waxal. te ñooñu kon neexuñoo waxal. kon nag li ñu am. ñun nag li ñu am. bon li ñu am. bon nag li ñu am. mooy ñu ngi ñaan yàlla. kon ñu ngi ñaan yàlla. yow yàlla. yow yàlla. borom salaamun qawlan min rabbin rahim. borom salaamun qawlan min rabbin rahim. yàlla ñu ko yàlla ñu ko may. yàlla nga ñu ko may. yàlla ñu ko sa wàcceel ci Sénégal. yàlla nga ñu ko wàcceel ci Sénégal. yow yàlla. yow yàlla. borom laatu axisna inna sina borom laatu axus naa nin si naa yow yàlla ci yàlla na ñu yàlla nag ñu musal yow yàlla yàlla yàlla nga ñu musal buñ fàttee ba def lu dul noonu buñ fàttee ba def lu dul noonu yow yàlla yàlla nag ñu musal yow yàlla yàlla nga ñu musal yàlla yàlla nga musal Sénégal yow yàlla yàlla nga musal Sénégal yàlla yàlla nga musal peuple Sénégal yow yàlla yàlla nga musal peuple Sénégal yàlla yàlla nga jàpp ci suñu loxo yow ba bu réer ba bu réer bu réeral kenn bu réeral kenn liñ xam liñ xam tam baax tam baax yal nañu yal na ñu may yàlla nga ñu may ñu xam niñ koy tasaaree ñu xam naka lañ ko war a mën a tasaaree yàlla buñ lor kenn yàlla buñ lor kenn yàlla bu ñu kenn lor yàlla bu ñu kenn lor yàlla buñ mën yàlla buñ tooñ kenn yàlla buñ tooñ kenn yàlla bu ñu kenn tooñ yàlla bu ñu kenn tooñ itam yàlla ñu yàlla musal yàlla ñu yàlla musal ca yàllaam nga ca yàllaam nga asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah am na tàkk la Thank you.